الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfal ci safoo ngeen safoo seen seen YouTube bii di Diwane TV di leen soññ bu baax ngeen wéy di abonné seen seen bii di Diwane TV ngir njariñ ci bàyyi ko jëm si jullit yi suñu borom yi te lépp di bàyyikoo ko ci alxuraanul karim ñoo ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ak taxawaay bi te lépp bëgg lu baax waral ko te mbokk yi ngeen gis ni bés bu nekk ñu ngi indi ay njariñ yoo xam ni ak i ngëneel yi bàyyi ko ci alxuraanul karim te ji nag ñu indi leen lu am solo lool ci ku nga xamante ni bii soxnaam dafa dem maanaam olof di ko wax ko soxnaam fay te mu bëgg mu ñëwaat ndax ñaare ku ne xam na ni danga nekk ak jigéen am tam cofeel lool te day mel ni du mën a toog sa kër wala day mel daa am ko fa def te loolu daa mel ni mu xaw a bari lool sax dana ngi indi leen secret boo xamante ni bii képp koo xam ne soxnaam dafa dem tolof di wax na la fay te mu bëgg ma ñëwaat si lu gaaw na tëral xaatim bii comme ni ngeen ko gisee ci image yooyu te mu xool ko bu baax bañ cee bàyyi dara gis ngeen ni xaatim bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo ko wër ci wet gu nekk waaye buñ xoolee ci biir indahu ci rajihi la qaadirun moo ko waraat ak talsami nu dugal ci biir waaye yeneen gis ni am na ci espace boo xam ni vide la dara nekk fa espace boobu fi ngay sox sa tur sa tur si kaw tur soxna si féete suuf boo paree nga wut ginaar bu jigéen nga lottal ko maanaam rey ko jël bopp ba bopp ginaar gu jigéen nga si ngay lem téere bii ba mu sew nga dugal ko ci bopp ginaar gu jigéen googee boo ko mënee suul sa biir néeg nga suul ko fa boo ko mënul nga def ko sa ëtt incha allahu rabbi képp koo xam def na ko tam ànd ak yéene suñu borom dana ko sa dimbali ba soxna si dana gaaw ñëwaat ci lu gaaw a gaaw a gaaw incha allahu rabbi waaye del fàttali alxuraan moom ak sell da cee am solo lool ci koy jëfandikoo te it jox ko war ma akub yitte am na solo lool ndax alxuraanu karim am na fu la jut doy ni boo ko yëgul du la yëg kon ñun jullit ñi nga xamante ne bii amuñu leen lu alxuraan nañ ko gën a fonk te xam ni lépp luy njariñul àdduna ak lu àllaaxira suñu borom def na ko ci biir te lépp lu doomu aadama di wut lu nekk suñu borom daxañ na ko ci biir xanaa kay dafa fekk dafa am jëm yoo xam suñu borom dañu koy baaxe am ñoo xam ne suñu borom dañu ko baaxe waaye ñu ko suñu boroom di baaxee ñoom itam dañ koy baaxewaat ñi nga xamante ni bii ñoom la ko seen borom def te ñoom xamuñu loolu ndax loolu mooy jikkoy jullit jullit kat lépp lu mu xam ci ngëneel war na ko yéene morom ma di wax ni ngeen woy di partage vidéo yi ndax lépp luy jëriñ jullit rek boo ko gisee war ko yéene sa morom ñu ngi leen di jaajëfal nag bu baax a baax ci safoo ngeen safoo seen seen YouTube bii di Diwane TV di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkk si yéen te xam ne bés bu ne ñu ngi koy ànd ak yéen fas yéene indil mbir yu wér lool te wóor te ànd ak njariñ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu